ba mbàkk yu fay tàng jër dégg naa ne fa di saaga rek yëg ci kaw terrassam ba di di di tux sisa mbakk yu fay tux kottu sisa la kër ga daa tàng jër ñu ne di saaga ak di déglu sama laay bi di saaga booy fu may wax ci ñoom di saaga ah ma ne saaga biir kër information jooju saaga biir kër moom intéressé wu ma ah, ah, ah, ah mu jël téléphone am di woote ah non il paraît kii la nekk Canada nekk quoi non non yëg ci kaw terrasse bi di muqi sisa moom mbàkk yu fay. ñun Mbàkke Faye jaaxalu ñu xam nañ ko bu baax Grand Dakar la woon du léegi sàccub terrain moo ko may lii Mbàkke yu fay gëmut diine gëmut aada gëmut tara a bandi la woon buy taxawaalu ba léegi changé wul am na benn waaye bu ñëw na may man moo la maa ngi doog comprendre parce que man dama mus a ànd sama benn sëriñ ñu dem seeti Mbàkke yu fay këram heure julli jot sama sëriñ bi jàpp ñëpp jàpp di julli Mbàkke yu fay dem biir néegam di julli <laughs> ma ne ko yu fay di faramasoo ak kay way gu dara farama so la bandi la bandi salta la fi la euh euh pap dox ci sa ci kaw terrasse ba euh pap alégay faatu mu dem nan day dag baram ba pour wut ay empreinte lepp la doon détourner bu dagone baram ya bes bu dagone baram ya alalu pap alégay bi milliardaire ba mu may doomam lepp lay détourner parce que baram ba lay jël empreinte ya lay wër dagul baram ba parce que indi tanaay ba ci ca ca principal principal ca morgue ba mu ñëw indi ay tenaayam taxaw ay oto ànd ak ay booy pour dagg baaraam xam lu mu doon emprent empreinte empreinte fépp la doon teg empreinte ne waa ji la këy jël këy këyitu kër yéeg lu mu fi bàyyi yépp la doon jël milliardam yéeg lépp la doon jël ne Pape Alé defoon na ko mu ngi yaa ngi nii génneel empreinte yi mi ngi nii signé na ko fii tamponné na ko fii empreinte am yi dina ca feeñ empreinte la doon wër pour dagg baaraam ya détourné milliards ya sàcc yi mag lañ bandi la salte lañ waxoon naa la ko nag xam nga def saaga yi ngay saaga yi yëg ci kaw bi tox sub si sa ah, non ñu ñu naan non non booy bi dafa ma ko énervé quoi dafa ñeneen ñi di saaga yooyu seen kër yooyu bàyyiwuma leen bàyyeeguma leen yéen ñoom nee nañ dama acharné wu ci seen famille loolu da lañ wax jigéen ñi ne kii kay benn waay ne fa di reetaan ah sama ñi ngi jégalu de <laughs> dañ ñi ngi jégalu kii daf ñoo sonal daf ñoo sonnal dafay acharné wu ci ñun daf ñoo sonnal nee dama leen a sonnal man ku fi ñëpp laay rëbb dëmm bu fekkee ni dëmm bi nga xam ni moom mooy seen seen waa ji nii Félix Antoine ñàkk jom moo dugg foofu ma dugg foofu ma dugg foofu loqati ko fa ku ma fa fekk muy foowee dama lay yóbbaale donc foofu bu ma duggee dégâts collatéral moo tax mais yàgg naa def live musuma dugg seen kër googu ba ma fa duggee ba mu fa dëggee fenkat bu mag boobu noonu duulkat boobu sàcckat boobu sosalkat boobu raykat link boobu yi nga xam ne moom mooy Antoine ñàkk jom ba mu duggee sa kër googu ngeen yaatal ko fa jox ko fa jabar takku suuf ci laa ñëwee ñàpp seen maam voilà nay leer ay dégâts collatéraux ngeen talu talu leen ma ci wee faalewuma leen alalu askan wi ngeen sàcc sa baay mu terrain yu bëri yu mu sàcc ay litige foncier yoo xam sa bàyyi terrain jàmbur yëpp la sàcc dem fu ñu bind mbakk yu fay ci internet bi ngeen xool fépp ay terrain jàmbur yu mu sàcc ay ah grand bi nee na euh, il revenir mais man pare naa ci moor moo moo moo moo moor euh, kese nee na ma booy maa ngi lay revenir léegi ñu bind bind leen rek mbàkk yu fay ngeen xool mbàkk yu fay lépp waxu terrain la Ablaye Wade moo ko may li mu am nii ab Ablaye Wade sàcc terrain rek rek la fi nekkee woon ak sàcc ay urne jamonoy PS Mbacke yu fay jàpp nañ ko en 1900 ci année 80 xam nga gars yi boo waxee kilifa yi ñooy génn booy wax kilifa benn paa moo benn kilifa moo ma woo léegi ñibbi na Sénégal moo ne ma moom ak Mbacke yu fay moo ne ma fils man ak Mbacke yu fay yow li ngay wax lu ndaw nga ci xam Mbacke yi ñoo nekkoon doon France les années 80 nag ñun de grand père ci lañ judd. mu ne les années quatre-vingt Mbacke Faye jàppoon nañ ko fa ci trafic de de Yamba trafic mille neuf cent quatre-vingt on était en France à Paris Mbaye wax de mu ne ma il était là-bas avec Mbacke Faye quatre-vingt les années quatre-vingt sax la wax les années quatre-vingt mu ne Mbacke Faye jàpp nañ ko fa ci trafic de drogue trafic de drogue Mbacke mii. ma ne ko ah père moom loolu ma xaw parce que ñun année yooyu lañ judd mu ne ma jàpp nañ ko fi ci trafic de drogue du nitu dara sàcc bu mag la. du tout tous voilà mbàkk fay du tey maire de Grand Dakar doon tiire fetal vi vi di nangu ay këru jàmbur ay cité cité jàmbur ay mbàkk fay baayam da ko fay bàyyee dara yaayam da ko fay bàyyee dara nan la mbàkk fay bëgg moom Dakar gi yëpp cité yëpp mbàkk fay ko moom yëpp mbàkk mbàkk nan la ko fan la fan la ko mbàkk yu fay jëlee ci koo xam ne années quatre-vingt na la ci jaayum yàmba France ay caaw ku wax lépp de man maa ngi ñëw ma de man ku may bàyyiloo juddoogut peace voilà jaaykatu këriñ la woon jaaykatu këriñ la woon après mu dem ubbi benn usine am booy dugg biir Rufisque booy dugg buntu Rufisque rek foofu la ubbi woon usine këriñam mooy këriñ yi ñu doon jaay ci boutique yi di di ci sotti di ci sotti jël benn euh, këyit yooyu carton yooyu sotti ci këriñ këy këriñ yooyu yooyu këriñu mbàkk yi fay la jaaykatu këriñ la woon nangu ay terrain port nangu ay terrain ay ay litige foncier rek c' est un délinquant foncier et financier Mbacké yu fay c' est un très grand délinquant foncier et financier waaw waxam bi yëpp mu nangu fépp mu nangu c' est du n' importe quoi ça kër yi ñu doon nekk ci paquet yi boo dem booy booy dugg Rufisque noonu ci bunt bi foofu la usine ba newoon moom moo ko moomoon sàcc rek la fi nekkee woon la ñu sonal moo tax ñu ñëw tey ñuy ñenn ñi jël photo ay doomam yi ñu ne ñoom dañ doon feetu feetu kat bu leen ñee gaa yi bàyyi leen caga ji ngeen di ñee doon leen nit yu baax nit yu baax yi jaar nañ fi bu dee jigéen la ñeel jigéenu talaatay ndeer ñeel sa ndey